what I Assalamualaikum. Assalamualaikum. salaam. waaw waaw Linguère comme ni ma la ko waxee kii mooy sunu candidat bi ma la doon wax Pape la tudd moom nag ci quartier bi rek xam naa mirantewul leen wax dëgg yàlla nag liggéey rek moo ko ñor te sawar a jàppale ndaw yi te yéen gis naa seen liggéey macha allah ñu am mbooloo ngeen moo taxoon ma nekk dañ fi yegg si pour nu ngeen ñu jàppale ñun tamit ñu jàppale yónneewul eh, ci seen affaire politique yooyu. ñu jàppale fi lu lay jàppale. xam ne salon de coiffure la moo ma indi ko pour mu ci salon bi. xanaa tey la ñu ñun du tey la soxla ku ñu jàppale du tey la soxla ku ñu jàppale xanaa moom tey la ñu mën a jàppale tey bi nga xamante ni ay weer a pour ñu fal ko la pour ñu fal ko la ñu ñun fi def nañ ci lu ëpp ñaari at Nek si suñuy difficulté suñuy problème kenn mësu leen gis Ya ko wax léegi ci koñ bi ngeen dëkk kay waaye kañ fan lañ leen di gisee fii ngeen di romb ak seen di oto ak seen i kaar kaar di dem seen garde du yi jiital leen yenn saa dañuy am difficulté di la woo dooñ sax faale fii ngay romb di bondé que dosé di def nu la neex tey nag bi ngeen ñu soxlaa mën ngeen def seen délégation ñëw fi mel ni kuy takk jabar waaye nag dama bëgg nga xam ne ñun seen affaire élection yooyu daf ñëw soxalul ndax fii bu fi population bi nekkee di sonn di am seen difficulté ñun ñi ñuy xëy ñuy jigee di ñëw lu nekk la ñuy daj ci car rapide di ko defanteeg apprenti embouteillage yi kenn waxatu ko inondation baa ngi ne suñu yëre yaa nga ba ca kër su yëree mu nga ca ndox ma ba léegi ceeb moom kenn waxaale wu bu ñu añee bala ñuy reer yàllaa xam ngeen toog fii nekk ci seen bureau yi ñu climatisé nekk seen oto seen verre yu ñuul yooyu ngeen koy yégal ñi nekk ci biti sax duñu leen gis yéen rekk ay gisaate faale woo leen asken wi seen yónnewu ci ñu tey nag ñu ni quelques jours des élections ngeen ñëw fii def seen délégation yooy yaay naan di ngeen ñuy jàppale jàppale pour lan tey bi sax jàppale dafa war a am fu mu commencé yéen ñi ci koñ bi ngeen dëkk te du ci kenn ku ci jabaram di ñëw di fi coiffé woo et pourtant ci salon bi ci koñ bi la ne. ah non. <laughs> sama jabar bés bu ne fii lay ñëw. li xam na bu baax. fii lay solo. léegi yow yaa bëgguñu ñu fal la wala kii moo bëgguñu ñu fal ko. kii moo bëgg ñu fal ko waaye bu ñu ko falee dafa mel ne ñun ñëpp lañ fal. waaye nag danga war a xam ni danga war a xam ni kii nax bébé liir bu ndaw ki koy téye di ko nax. Ah. bu jooyee mu nax ko ak kii jaay biberon ba pare di wëlbatiku di naan meew ma bu ni ma tetuwaa ñii foog nga wax leen dëgg ñii foog nga wax leen dëgg dafa am yoo xam te ni nii dañ ko waratul a mën a toloore gis nga li ngeen comportement bi ñuy wax naan ay nouveau type de Sénégal xam duñ ko ciy waxee ci ñun ñi la war a commencé xanaa xamoo ñun ñi ñoo war a bañ nag taxaw temm bañ nag bañ ñoom ñu ñuy utiliser bañ ñoom saa yu ñu bëggee ñëw fii jox ñu ay t-shirt ki 1000 francs yu kenn xamul ñu dem topp leen bu paree ñu dellu ci seen i bureau ñun ñu dellu ci suñu misère bu ñu nekkoon loolu daf fi war a dakk gis nga ñi ñoo war a jël nag suñu dëkk bii ñoo ko war a téyal suñu bopp li ma leen di wax ba wax leen mooy ñoom ñoo war a xam bu baax a baax a baax ñun lu ñu bëgg ñu ñu koy defal suñu leen falee ñu toog di ñu defal lu ñu bëgg bañ a bàyyi ba élection yi jot pour ñu fiy ñëw loolu dafa war a dakk loolu ñoom dañ ko war a xam ñun ñoom ñi fan la ñu nekkee bi nga xamante ne nii xale yi ñu ngi souffrir ci mbedd bi ñoom fan la ñu nekkoon bi nga xamante ne nii taalibe yi ñu ngi fanaan ci mbedd mi ndax ñàkk lu ñu verser seen sëriñ ñoom fan la ñu nekkoon bi nga xamante ne nii yaay yaa ngi nekk ci mbedd mi di saraxu pour lu ñu seen doom yi fan la ñu nekkoon yow mii bi nga amee ay problème ñu naan la sa salon bi amul classe ba nga ñëw fii fan la ñu nekkoon bi nga nekkee ci ay difficulté du ay prêt ñoom fan la ñu nekkoon bi nga xamante ne nii ñun soxla nañ leen fan la ñu nekkoon étudiants yi chaque jour ñu grève man sama yoon new ci ñoom sax waaye chaque jour ñu grève ah ñoom fan lañu nekkoon fi nga xam ne ñun ñi mindaan yi par exemple amuñu amuñu amuñu amuñu contrat kenn duñu fay bu baax yenn saa yi liggéeyloo ñu ba weer bi jot ñu dàquñu ñoom fan lañu nekkoon leer na ma ni nag seen programme sax ñun dugaloo leen ci c'est-à-dire di tànn ñi leen di neexal ñi leen neexul ñi leen mën a apporter ay nit ak ñu leen mënta apporter ay nit seen intérêt rek la ñuy ñëw ñoom fan la ñu nekkoon fan ngeen nekkoon bi nga xamante ni dëkk bi ñu ngi nekk ci problème yooyu yëpp fan ngeen nekkoon loolu laa leen di laaj bon soxna si li nga wax dëgg la mais moment yi ngay wax dafa fekk suñu candidat nekk fi dafa nekk bitim réew am yeneen yu muy lijjanti mais comme que yàlla def na ñëw na ci jàmm seen aajo yépp dina faju dootu leen am dara loo xamante ni dina leen naxari comme que ñëw noppil noppil parce que kii li mu wax yépp déglu naa ko mais li mu wax noonu la parce que man nekk du fi nekk lu bari yéen yéen a fi nekk dëgg yaa ni ma sax amna ben sono bu ubi fi ci la xol gis tableau bi bo ci la ni ci la ngoni amna ben sono bu ubi fi te ay jigen lañu yo tane vraiment ay jamba lañu xam nga ñu nango liggéey ñu te kon ko man nak ñi nango liggéey ñom ñoma taxa jox ak askan ni ak fima dekk ndax dañ ni kat bay ki sa wayu tank kon bala may dimbal ken ma dimbali soxna yi nga tane ñom nango lañu liggéey waaw li nga def na rafet nako mais ki tamit limu wax an na ci yow sax lo lo doon ci salon bi yow ba hmm minan la nga fi waaw kii nag njaani nag moom seen suuf kàddu soxla daa ko parce que ñii ñoo tax ñu naan population bi parce que ñoom ñooy dugg ñoom ñooy liggéeykat yi genre bi ñoo tax may sonn ndax man du ma fi nekk lu bari yéen yéen a fi nekk kon donc li fi ne yéen a koy xam dëgg mm-hmm. moo tax ba nga ma waxee ni ma ah gis naa fi ay jigéen ñoo xam te ni wax dëgg yàlla jàmbaar lañu ubbi nañ fa salon di góorgóorlu waaye seen bi demul noonu nga ne ma nag ko man ni kon nañ dem buñ demee ma jéem a jàpp ndax nit tamit moo la jàppale kenn nit ah. Euh, doy na tàcc yi baax na parce que man soxla ma ay tàccu man dëgg laa soxla waaw ja kii lii mooy wax genre bi laa soxla ñu may wax dëgg parce que réellement tàccoo tàccoo tàccu ba lu ma gis rek wala lu ma ma fa ne ay tàccu la dama bëgg ku may wax dëgg waaw ku may wax laa bëgg ndax ñii genre yi ñoom ñoo tax may gën a sonn te ñoom ñoo tax ma xam man su may taxaw xam li may la liggéey lan la xam nga mais su ma waxee rek ngeen tàccu donc doole ma wax li fi nekk duma xam li fi nekk kon te population bi ñoom ma tax a jóg du dëgg waaw donc man dinaa leen fexe jàppale leen xanaa sax war war leen a mën a bañ mu doon ay kas ak ay lave-tête xam nga même bi sax mën naa ko jël en mm-hmm. xam nga dinañ ko fayal loolu tam dina gën a mën a yombal seen liggéey awlaw naa leen ko de xam ngeen ne roy du nu roog piir kuy jàpp-jàppal sa waay sa waay mat a jàpp dëgg la

waaw suka la su ko defee sax kenn du perte. mais nag yéen aussi bon war nañoo wax yéen seen tableau bii ma seen mais vraiment cher na yéen tam jox askan wi itam jàpp na askan wi waaw parce que seen prix dafa cher ah war ngeen mën a wàññi seen prix et puis sax bu ñëpp rafetee koy leen defar man nag bëgg naa leen jàppale. développement bi mën a yokku. développement lan mooy développement. développement ku ñuy en copine. rek ndax seen développement dafa melni ngeen may ma auto ba pare te joxo len ma luma ci defé essence auto bi mom ñepp di lañ koy gis diwo ko may auto waye essence bu ma ci def man pour dawal du am lolu ngeen di gisé développement seen aaju yépp dina faju leg ak ma foy bobu leg bu defé yi ngeen soxla yépp ñu man ko ci def bu ko am ben problème lepp ma jël ko en charge ndax jël ngeen dara jël nañu dimbi la ah, parce que genre yi rek la bëgg man ku bëgg liggéey rek bon ma ngi sa ginaaw ah. voilà bon yow après li ngeen soxla yépp ah, après nga bind ko fii bu ko defee. waaw saa après dégg nga nga mën ko mën a yëngu voilà. teel teel amul problème. teel soxla si man dama leen di jàppale rek xam nga amul benn problème léegi léegi boo defee soo bindee lépp li ngeen soxla. après boo ko joxee Mor. Mor dama ko jox. après amul parce que man dama war a génn ce soir xam naa dama war a dem euh, am na benn réunion ma woo dama fa dem ngoon mais boo ko joxee Mor rek moom naa jot. dëgg la bu leen jàppee nga xam ne jàpp amul benn problème. leen jàppee nga xam ne ñu def noonu. waaw mën def. waaw soxna yi jërëjëf Oke. Okay. Kulon no plan. Inom lang? Lucy Sayon?